mooy nopp nga ko ndax jikkoom mm. ndax taaram ndax poosam ndax alalam ndax dooleem wala xelam mm. alors que bu fekkee da nga tolérer la personne mooy da nga ko accepter comme ni mu mel mm. bu doonee dawalkatu fas wala gàtkatu foos ak ku mu mënti doon da koy nangu te yàlla tax doo gis dara mais yëg-yëg mais yëg-yëg boobu noonu fu mu jóg fekk xol baa ngi lay conditionné rek ah. xamoo fi nga jëm kon moo tax waruñoo nob ak xol dañoo war a nob ak xel mm-hmm. ki nob ak xol mooy ki nga xamante ni dañ naan l'amour a ses raisons que la raison ignore loolu man mën naa ko mën naa ni c'est une aberration parce que lu tax xale bu jigéen bi bi jàng ba am yenn statut yi mhm. di choisir benn góor bu am statut comme moom mhm. c'est parce que ba muy nopp nopp naka ak xelam mais noppu ko ak xolam mhm. parce que xol bi amul bët mais xel bi dina xalaat mais xel mooy travail li jox xol yow tamit Arona non xol parfois moo ëpp doole de mooy conditionné sans réflexion mais bul bàyyi xol bi bul bàyyi xol bi bul bàyyi xol xol bu bëggee da lay yóbbu ci problème bu xol doon bëgg ki am cardiaque ba nu opère xol bi remplacer ko def ci beneen xolu kawsu wala def ci xolu xar wala xolu beneen nit. Mm-hmm. temps bu yeewoo ci comment jabaram lay njëkk a laajte ak doomam. Mm-hmm. kon mooy bëgg. mooy bëgg. ruu ruu. waaw dégg nga fa mu génnaat booy bi ak gi. non du xolay bëgg bu xol doon bëgg ki opéré. ruu lu mu tudd en français âme. merci. am mooy bëgg. waaye c'est acceptable mais parce que am c'est la pensée c'est tout ce qui tourne autour de l'idéologie voilà tout alors que bu dee xol bi xol bi da lay yóbbu yow sa plaisir benn instant moment carré moo tax ngay waral ngay jooy fii di am déception fii di ñi lay bàyyi fii entre guillemets si benn waxtaanu benn góor mos naa dégg ni benn waaye dafa mosoon ñëw ci sëñ euh, sëñ euh, euh, baylaat. Hmm. ñàkk teexal baylaat. mu ñëw ko ay ki rangooñam baalaat ni ko waa sama waa ji looy jooy mun ko soxna see ma wàcc mm-hmm. mu muuñ ree sëgg ci suuf mun ko sëñ bi lan la dama ñëw pour nga taxaw may may nga may retaan mun nga waxoon naa la ko bu yàgg mm. ne woon naa la jàppal yàlla moom rek ngay jàpp du la bàyyi mm-hmm. foofu li fay dugal mooy entre Dieu et autre chose il faut choisir Dieu mm-hmm. toujours car quand tu choisis waxuñu yàlla nag mooy bu ñu indi problème yàllaa njëkk a joxe amour mënuñu wax amut génne ci yàlla parce que adama ak li leen sàkk ak li ñu sàkk ñun ñëpp cofeel la ak mbëggeel déglu ko bañ pare rek booy bi booy bu garaaw bi waaye déglu ko rek naan l'amour n'existe da nga déception mais tout le monde a eu des déceptions wax ma sax mais wax ma une mais des déceptions tout le monde a eu dire que l'amour n'existe pas ah non su ma ne c'est gravissime l'amour n'existe pas mooy nit ñi jàppee amour ni Sénégal définiree man kay li ma wax nee naa n'existe pas après indi naa li existé wax naa sama version. wax nga sa version. mais amour gëm mooy mbëggeelu mbëggeelu conditionnement boobu laay wax ba mu ñëpp jàppee amour. Hmm. boobu baaxul faama. boobu baaxul boobu ci dérive la lay yóbbu. lu tax di dóor moroomu euh, kii jigéenam fetal su ko defee yenn yi. ko fetal wala mu door ko bal. nañ ko mais loolu mooy wane. Euh, la puissance de l' hmm. nga mu mu àgg loola ci faire des folies. vouloir te suicider te bëggoo dee. xam nga un rescapé de de ngay suicider ñu ñu la. waaw ah. soo ñëwee ci docteur bi loo koy njëkk a wax docteur def ma ba bu ma dee. Ah. parce que bëggoo dee réellement mais li la gaañ li la gaañ ci sa biir xol. ba nga dem ba nga dem ne da ngay xaru ji mu jaral la ko. loolu mooy loo mënul contrôler donc loolu du raison du lan bu doon da koy defak ak xel arona euh, ñun ñi ñëpp bu doon xel la ñuy demee calcul kon duñu loolu te nag sànq dafa am lu nga wax. Mm. nit ku bëgg ko ne dafa am lu nga bëgg. Mm. Ah, da nga ma romb ma am sa feeling. sa style neex ma sa genre. loolu xel la loolu moo ma attiré. loolu xel la. ci xol boo ko transféré xol. loolu xel la loolu xel la. waaw mais xel lay transféré xol ba bëgg. lu tax xale bu jigéen bi damul damul see euh, j'ai rien contre dawalkatu fas wala gaskatu fas lu tax choisirul kooku mu dem choisir. mukk xale yi rafet yaa ngi dugg ci mécanicien yeeg tool yeeg yooyu de. ñoo ñoo yor yëf lan moo tax ñu def choix. jom la jigéen bëgg ci góor. bien sûr jom. bien sûr wala non boo demee kilifa. mu tax mu def choix bi ci personne bii. Mhm. kii ñëw mu bañ mu def choix bi kii parce que utiliser na xelam. mooy genre kii. <laughs> yow ki soo ko yor lu dul jeex bàyyi bi dugal ko ci lu mu ne ko bi laa bëgg diw xëy wàccu. waaw loolu loo koy woowee. am na lu dugal lan moo ko ci dugal que ñii ñi jàpp ni intérêt mooy loxo ci poos. du loolay. mooy intérêt xam la mooy intérêt mooy li nga xamante ni nit mu nga kaa jëlee ci moom. tey wax amoo ko. wax ko ci rajo doon lu ne. day waxal mu leer. na sama xel bi. waaye ba ko rek. ñii dañ ni ñii prix ñu ni yéen tey ñu kii leen. débat bi dèjà fi ma ko fay teg man man fi may teg débat bi. ñoom ñëpp man fa lan may fekk. ah man maa leen di fekk. kon boobu nañ dem nañ xool gis-gis ñeneen ñi. Ah, may ñëw ci Mamadou. <laughs> Mamy ci man moom j'ai la langue qui. Euh, oui parce que man. waaw <laughs> euh, bëggeel. l'amour d'abord existe existe-t-il vraiment. mais on doit anticiper si kan mooy bëgg kan mooy bëgg d'ailleurs c'est l'homme nit ki doomu aadama ban aadama mooy kan yàlla da koo may xel. man dès de début dès le début je dis que de manière catégorique l'amour n'existe pas. ah. <laughs> ay bëgg a log lañ. lenn lenn moo am. booy bu seen ah dégg naa sànq nga ni ak nuyu sa jabar. waaw après que li jënd sama jabar bu may seetaan. waaw d'accord boo yeggee da nga ko la sama bu may seetaan mais dama ne. amul wul. li tax li tax ma ne la li tax ma ne la mbëggeel amul. nit day bëgg bëgg am na mais bëggeel si boppam amul dafa am benn borom xam-xam. bëggeel am na. bëgg am na mais mbëggeel amul. déggal ma lii. loolu noo koy. bëgg am na mais mbëggeel amul ma jox la ma jox la benn misaal benn boroom xam-xam bu ñuy wax Socrate. Mhm. dafa romb ñaari nit ñuy xuloo ñaari xale bu góor ñuy xuloo si senn si ndaw yow nga romb kii na ah waaye faama ak rafet. Mhm. kenn waay faama rafetul waay ñuy xuloo ba nar a jàppante. Mhm. Socrate tollu fee ne leen waaye yéen lan la. ñoo ñu ne ah non man dama ne faama mii dafa rafet. waaw raison am la. elle raison am la. kee ne faama dafa ñaaw. gis-gisama. sama ñaaw mu mu ne leen. léegi nag lan ngeen lan ngeen di werante ñu ne ñun dañuy taar la ñuy werante lan mooy taar. su Socrate ne leen bu fekkee ne question bi ma leen di euh, posé ku ko si tontu ma xam ne. ma ma ma lijjël seen problème luy taar lan mooy taar. Ah. kii naan taar mooy ku njool ku xees na nga mën a ko déedéet. taar ak lu rafet du benn. d'accord na. taar kenn personne ne peut définir de manière substantielle. taar qu'est-ce que la beauté. Mmh. mais qu'est-ce qui est beau. Mmh. ça dépend. parce que man si qui est beau pour moi peut être laid pour laid ou pour l'autre. li rafet si man mun naa ñaaw si keneen. moo tax ma ne ku nekk istilam. ku nekk istilam. léegi nag mbëggeel mbëggeel mmh. c'est-à-dire bëgg. bëgg oui. am na nit day bëgg mais mbëggeel amul. Ah, ah, xam nga lu tax. luy mbëggeel ak bëgg yow. mbëggeel son nom amour c'est A M O U R. aimer mm. eh pour les mouvements. et les opinions ultra rationnelles. Dans les définitions de amour. C'est bon, c'est bon, Vous savez, vous savez, ce qui ce Mooy yow da nga te dàq. Li nga xam ne li nga xam ne moo dàq. moo dàq ko dagg ci fii la. moo dàq. li nga xam ne moo dàq ne mbëggeel amul. parce que fa mu amee du fii parce que nous avons deux mondes. alxuraan di ko wax ne zahir ak baatin. waaw. le monde sensible c'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons c'est un monde de fausseté le vrai monde où il y a la vraie vérité où il y a l'amour c'est le monde intelligible c'est pourquoi d'ailleurs la ère de mbëggeel de amour c'est ultra c'est-à-dire au-delà de la rationalité du lu di mën a expliquer waaw mbëggeel kenn mënu kenn mënu ko expliqué yow mën a set wecc di def parfum uh-huh. rafet ah, am jëkkër joo xam ne dina toog une semaine du sangu nga muñ ko nga muñ ko parce que la la la lay lay sukkuri faama du fii foofee la nga wax leneen sang bi sa waay dugg rek sànq na koo ñemewul <laughs> déglu ma rek ku ci nekk ak la la jàpp ba ko ba mu dikk rek faama moo tax gis nga li mu doon wax sànq li Socrate wax bi nga ko laajee mu définir beauté uh-huh. dafa ni. alors que jàngal ci kii. waaw dafa ni bu ñu ko laajee la mu ne la beauté n'existe pas hmm. chez la chose regardée. Hmm. mais dans l'œil qui regarde. la chose waaw ci même ci même période ci même situation boobu ci même même fait boobu. évidemment leer ni tout ce qui est beau. Hmm. est laid en même temps. parce que kii da koy gis mu rafet. gis ko mu ñaaw autrement waaw. autrement ma doon bañ. mooy ñu généraliser. déjà ci ñàkk généralisé boobu kii particulari euh, particularisé na dara léegi ñoom nan leen def euh, femme eh, waaw góor bi yéen a mën euh, man moom man xam nga déjà uh-huh. bu neex mbëggeel moom bu dee bu dee Sénégal dafa tuxu déjà bëgg dëkkatu fi xaw ma nag ban région la nekk naa jël na feneen appartement mais dëkkatu Sénégal pourquoi bi ndax bu ay góor toogee ne mbëggeel existé wu ñu xaw ma ñan la ñu war a bëgg da ngeen di noppi nag tey rek ngeen di noppi dama bu ay góor toogee ne mbëggeel existé wu ñun ñun kan lañu war a bëgg. benn mbëggeel existe na mais yéen a ko rey ba mu dee. mooy benn yéenay jaawale bëgg. ak fan ak sopp. ak diw daf ma neex. moo tax bu ngeen toogee fii faaw ngeen existé wu ndax ni ngeen nekkee mënta existé xam nga tax. Hmm. tey boo nobee kii une semaine. Hmm. mbëggeel dafay feeñ. Mm. ak cofeel nga ba ko. deux semaines seen mbëggeel mel ne Nescafé. Mm. wàccaat ba ci suuf. Mm. kon amul moo tax yeen bëgg lu ma yéen yéen ko fi dindi. kon c'est éphémère. non des ñu bëgg ma léegi. ma rek ma ñëw. ñun ñooy bëgg. yéen bëggoo leen. moo tax ma ni góor ñi nañ leen bàyyi ñu nekk ay alalu yàlla alalu suñu borom. du bëgg day miin. jigéen miinul de loolu jigéen miinul de. Eh, jigéen day miin du bëgg. non d'accord ba ngeen di dañ leen a déglu woon ngeen ngeen suñu xel da ngeen di dégluwaat. <laughs> ba ngeen ñëwee jaxase mbëggee ni amu fi génnee ko Sénégal ñii lañ àndal. léegi nag damaa bëgg ngeen wax ma xam nga Sénégal yàqu na. Eh. bëggee n'existe pas moo yàq dëkk bi bëggeel bu amatul. mais ñaari mënuñu ànd. naxante existé rek. maanaam léegi soo waxee ñu ni naxante la. déggu ma ni femme bu ay góor toogee ni mbëggeel moom amatu existé wu ñun xaw ma dañoo war a bëgg. yow xaw ma dañoo war a existé am na côté bu existé. xam nga tax ci ñaar ñu bëggante dafay existé. merci may ma de ci ñaar ñu bëgg <laughs> dafay existé. Mhm. ba mu neex te muy dëgg loolu du femme du gis la tey am si yow benn intérêt. Mhm. bëgg dafa am bëggeel pire. mooy xamee ni kii bëgg nga ko ci ñaar ñu existé. ah yëg-yëg la sentiment la. xam nga dèjà mbëggeel mi ngi commencé fi ngay toog di ko namm. Mhm. faama ki nga bëgg da nga koy namm. moom te kenn du namm koo xam ko gisulee da ngay wéet. Mhm. daf lay mottali daf la may jàmm. Mhm. daf la may salaam. Mhm. maanaam dafa perte attention ci yow. kooku rek moo tax ngay dund kooku rek ngay topp parce que kooku moo lay wax ni yow jigéen nga. moom maanaam li nga sol rafet na. Oh, bëggee waaw sañse nga. sa bopp bi rafet bu lekkul nga fay la non yéen ma doo laaj doo laaj la benn question a bokk jamono. li ma laaj mooy. du tax buñ la muuree. waaw ñu la muuree. sa ce garçon kii rode rôdait autour d'une boutique. waaw uniquement pour te voir. c'est mu muy muy muy taxaw pour rek nga génn rek mu gis la. bari feem ñu ñu muur la. li la li la sa parent di njëkk a wax. Hmm. lu tax loolu boo demee muñal. lu tax sa xoolal la tooñ. Ah, déggoo li ma leen wax de. lu tax mu ñëw. waaw ah. mu ñëw yéen yéen a. Ah, waaw tàcc nañ la. yow lañ may tàcc gis nga moo yàq góor yàq mbëggeel. Mm-hmm. ak baal ma baal ma bu bari. moo tax ni ngeen mel nii ngeen mel ko. Mm-hmm.